ñu am mbégte bu baax a baax tey bi ñu dajee fii war fii ñu war ñu jébbal matériel boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci USAID jaaree ko ci FAO muy matériel boo xam ne day fa jëm ci jàppale ñu ci li nga xam ne moom lañu nas ci fan yii di ñëw muy aar sunum réew gannaaw bi nga xam ne loolu ñu tudd grippe aviaire feeñ na fi ci fanweeri fan ci weeru décembre bi ñu génn ci feeñ bu njëkk ci Sénégal ah may fàttali nag ne feebar boobu feeñoon na ci àddina walla boog xawoon na tas ci àdduna ci atum 2005 boobu ak léegi am na fukki at ak juróom ba mu amee nag suñuy kilifay réew jël matukaay yi nga xam ne mooy li waroon maanaam aar sunum réew ba mbooleem loo xam ne ndawal la goo xam ne ci ganaar la bàyyi ko wala matériel bu ñu mës a jëfandikoo jugal ko ci mbirum poulailler ñu aar sunu réew ba du fi duggati

ba li nga xam ne dugg na fii mu yam fa mu feeñe euh, ñu booba léegi nag ñu nekk ci liggéey boobu ba nga xam ne këppatal nañ ko fa mu feeñe li desoon mooy ñu fexe ba nga xam ne li ci des mooy saytu li wër bërëb saytu suñu réew yépp saytu suñuy frontière ba nga xam ne danañ xam benn mbir moomu fu mu bàyyeekoo waaye fexe ba bu fekkee ne ci li ci suñ kanam feeñaat na feneen ñu am matukaay yoo xam ne danañ ko mën a gàllankoor loolu nag ban ci waxtaan waa FAO ñoom ñu ko ci ak waa USAID ci lu gaaw a gaaw ci ay fan yu néew rek ñu baaxee ñu matériel bii nga xam ne tey cérémonie bi ñu def sabab bi mooy mooy ñu teg ko suñu loxo ba ñu mën koo jébbal suñuy service ci turu monsieur le président de la république ci turu membre gouvernement de la république Sénégal yep ci turu également mbollem population Sénégal ak ñi nga xamné ne yëngu yëngatu ci mbirum yarum ginaar ñu ngi jaajëfal wa FAO di jaajëfal également wa USAID ci li nga xamné mom lañu la tay waye tamit di len jaajëfal ci ànd bi ñu ànd ak gouvernement du Sénégal ak population du Sénégal di liggéey ay at a ngi nii lii nag ma leen di rassurer na ni ñu ko jotee tey nii bu nu xëyee danañ ko jébbal ñi nga xam ne ñoo ko yee pour que mu nekk seen ngànnaay pour que li nekk suñu kanam ñu mën a taxaw comme ay soldats jàmmarloo ak feebar bi ba di ci sàkku ndimbalal yàlla ba ci ab diir bu néew ñu que ne fièvre boobu génn na définitivement ci Sénégal Nous mën a statut de pays indemne de la grivière H5N1.